li après sa manager. Hmm. doon gis benn instant bi di ko joxe. Hmm. ne léegi manager yi. seen hmm. rek la xool. loolu toppatuñu mbër. Tonnerre yow parce que gis nañ ni cinq défaites nga tegle. sa combat ak Tidiane Faye sax dinañ parce que moom nga mujjee bëre. ndax boobu yaa ngi ci saako yi manager doon doxalante ak moom. waaw c'est moom xamal li naan buur bëgg la nga bëgg buur buur bëgg laa ko gën comprendre man sa manager moom yàlla daa def man maa ko bëggal sama bopp. muy Paala. Paala Diop man maa ko bëggal sama bopp. comprendre nga su dul làmb dara sax man maa ko bëggal sama bopp mais luy problème bi moom benn saa yi day yéex a def rôlam comprendre nga du nekk si terrain bi di daw en cent pour cent parce que bu njëkk ba manager da nga naan daw si terrain bi topp promoteur pour ñu tëggal sa mbër mais moom su xëyee dem na joobi ji comprendre su wàccee këram tëdd na nelaw comprendre nga kon loolu bu boobaa su yàggee gars yi soo matul tam dama ñu fàtte mi defal mbër bi ay jéego muy am combat te léegi nga yóbbu ko fenn sax mu kaajee fa am dara mais manager léegi gis nga ko dañuy xëy di toog rek duñ toppati mbër yi loolu noonu tamit demul quoi. waaw beneen bi ñu ne comme que da nga xewoon mhm. gis macha allah yëppal nga dëkk. Mhm. Mhm. affaire jalousie amoon na di ci am. doon sa commencé du centre fu boppam. parce que ba ngay doon teg la di daan sax gars bari dañ ne. torof torof yi foofu la la commencé di gën waa xam nga luy problème moom nit moom bay sa weewu tànk comprendre nga Pikine laa nekk fan lañ ma ñëpp xamee lépp lu ma am si làmb rek fa laa ko amee comprendre nga yëmbal fii ñu bëri da naa ma jugal ikiri Pikine mbooloo ñëw yëmbal eh, jugal foofu ñëw yëmbal mais soo ñëwee fii doo am jàppale comprendre nga te tamit aussi bugg naa su may jugee Pikine mbooloo mu nekk jigéen bu rafet comprendre nga. waaw man moom ba ba may bàyyi làmb moom instant bi li ma dese nii dama ko bëgg a gérer Pikine rek parce que gisaguma loo xam ne war na ma mën a waaw. gis loolu du complexe ak su ma gisoon tey jii ay ponkale ay cadre yoo xamante ne dinañ ma jàppale taxaw ma samp fii ikiri loolu du dara boobaa damay dem sol sama daal dem ba Pikine waxtaan ak ñoom ñu bàyyi ma ma ñëw ñu ñaanal ma comprendre nga mais instant bi gisagoo loolu yaakaaroo ko fi parce que xam nga yëmbal nu muy doxee te yëmbal ay mbër kese la am nay booy yoo xamante ne ay qualité kese lañ booy ku leen jàppale ñu nekk mbër mais tey jii booy su ñu amul mbër bu mag pour ñu nekk mbër dina jafe yëmbal fii di nga fi yéex a dégg champion de waaw loolu moom man maa la ko wax bindal teg champion naa naa di nga ko fi yéex a dégg parce que fii jàppale mbër na mu waree waaw. mais affaire bi mooy comprendre nga. da am combat gars yi duñ la lijjanti duñ la jàppale comprendre nga yow kese yaay demal sa fugu bopp comprendre nga ñii dinañ la bañ di la siñ bañ doo comprendre xam nga ñii bu ngay may defar ñu si kontaan ñii di la jëw ñii di la waxalu ne mais dangay toog rek mu ñu gérer xam mhm. Mhm. na lu mu chuté yaa ko teg sa bopp parce que dañoo gisoon ni Tonnerre wax dëgg yàlla instant bi ci fi ñu doon dégg ay Balla Gaye ay Modou Lo dañ faa amoon cër. Mhm. Tonnerre nga relancé wu ba xam la. daanu daanu bu garaaw. waaw daanu bi moom ñëpp la bett man mii sax di wax yow la gën a bett parce que loolu mosuma ko woon yaakaar si làmb comprendre nga ni li ma ni ma jékki-jékki rek wàcc nii ba suuf mosuma ko xalaat si làmb parce que jàppale bi moo des jàppale bi moo des te tamit staff day gérer si mbër encadrement day gérer si mbër mais yow jàppale woo mbër bi encadré woo ko bëgg chaque jour ngay waxal mbër bi loolu moom doxul si mbër comprendre nga te man fii dama manqué encadrement dama manqué jàppale bu baax a baax bien vrai que am na ñu may jàppale sax mais dafa des lu bari bëree bëri bëri waaw. kon côté jàppale bi waaw côté jàppale bi moom su ñëwee moom franchement mën nañ gis leneen loolu tonnerre bi ñu gisoon parce que tey jii mënoo tëj sa kër naa da ngay dem entraînement ji déedéet da ngay xëy wuti ji loo joxe dépasse comprendre nga yaa ngi si sànce yi bu subaa yaa ngi si ay business jënd ay xar di jaay wala dugg si business jënd nag di defara di jaayaat ak yooyu te yooyu mooy loolu comprendre nga lépp lépp manqué staff la rek su staff amoon moom mun nañ gisaat leneen lu garaaw. Mhm. Tonnerre dafa amoon benn sëriñ boo xam te ni Saalum Saalum la. Mhm. nga war ko. Mhm. yóbbu sa fit depuis loolu Tonnerre fitam nekkatul ci moom buy bëri rek. fit bi sa sëriñ boobu yi dañuy wax loolu rek parce que tey jii soo nekkee si làmb nekk si ay tolof tolof lu nekk la ñuy wax ma léeg da nga dem si sëriñ sax mu naan la ah, da war da war benn sëriñ da ngaa def nii da def nii te man sëriñ moo tax aw ma dara si làmb parce que man bugguma sëriñ mer damay fay ba may la damay jëndal sa jabar ay portable pour bëgg la nga gën ma jàppale. comprendre nga mais tey su ne da am sa sëriñ boo war rek gars yi dañuy wax noonu lu leen neex rek. waroo kenn waruma kenn. soo taxee ak mbër sa fit. Hmm. ah déggoo ma la wax tolof tolof tolof tolof su ko yàlla war a jeexal day jeex. boo may daan ci jaan fay dama yeewu si si rek li ngeen tey billaay wallaahi victoire la ñuy ñibbiwaale. yi. Hmm. wax dëgg dafa laajoon yow nga xaw a xaw a suqali ko tuuti. Mhm. parce que tamit mënoo tegle ay defet yu bari. waaw tijaan fay tamit su ma tijaan fay bàyyi daanoon moom soo matul damay wuti damay wuti damay wuti sama turel rek nekkaat si sànje yi. Mhm. comprendre nga mais dama xamoon dama koy daan. dama ko teg fu bëri wóor a wóor a wóor dama xam ni tey jii moom ñàkkoon naa wéer wéeruwaay ba xamoon naa ko mais instant dama xam ni am naa wéeruwaay. instant bii am naa wéer waaye am naa ñu ma jàppale instant bii su ma amaatee combat li malien bi naan defet jeex na instant bi defet jeex na de. Mhm. bilaay walaay lu leer laa wax. waaye yëmbal nañ préparé xam ne saison bi bi beneen tonnerre lañ gis barke Seydina Mohamed. Mhm. waaw. instant bi nan ngay bi moom ku ñëw baax na booy mun naa leen may seen seen chance. yan bi ñoom. instant bi jën kay dañ fi coince moo ngi fi. kii moo ngi fi euh, euh, double moteur moo ngi fi. ay Baye Ma Ndione moo ngi fi. gaa yooyu noonu ndabar yooyu mun naa leen may chance. ñun jën kay double moteur Baye Mandione la nees comprendre nga ak kan sax ndabar yooyu daal mun naa may chance waaw ñooñu ay ndabar lañ léegi nga ci ñëw si lu lu eh, ñi nga xamante ni bëri woon naa ak ñoom ñu suñu bëgg Yékini Junior moom mun na ñëw sax su ko neexee mu leeraat eh? Yékini Junior su ko bëggee sax mun na ñëw mu leeraat kooku moom su la neexee sax ñuy bëgg saison bii di ñëw ñu dañ may fay moom dañ may fay su ñëwee su neexee mën na leeraat Papa su bëggee mën na leeraat. lépp si bëgg a bëre lépp si bëgg a bëre pour ñëwaat sama place. xam nañu tey jii jëli bi moom suñu combat moom xam ne jël amu fa moom loolu da koy wax sax danaan ay tonnerre jëli mu ko daan da koo naqari. ana daan foofu daan amu fa na ñëw ñu leeral ko. Mm-hmm. Yékini Junior tamit aussi na ñëw ma su bëggee ma may ko chance garga tamit na ñëw su ko neexee mu may ma chance. ay Moussa Ndoye gars yëpp nañ ñëw ñu bëre. lan yow instant kon pare nga bi déggoolu ma la damaa bëgg a defaat benn retour boo xamante ni dina bees tax. barki salaatil faatiha na ñëpp ñëw ñu bëre. bàyyi ma fi kenn. Saalum Saalum. Saalum moom kooku moom ndabar la kook moom nu ma bëree moom di ko jekkalee. Saalum Saalum maa ko mën di. Saalum Saalum dafa baaxati. Saalum Saalum day demate nii rek baaxatul ah dañ ma jox si gars yi Saalum Saalum su ko combat bi jarale am na ñu ko mën a tëgg. ñu ngi na ko tëgg. dama koy dóor ba mu tëddal boppam nam na gars yi jox si champion yi nga xamante ni naan tonnerre moom si li mu dugg nii xamu ko moo wanewaat sama bopp. combat yoo xamante ni tey mu dee la ñuy wax wala supporter ñii dañuy dem ñii duñ dem combat yooyu laa bëgg. mais ay Saalum Saalum moom soo kiiyee ñëpp dañuy dem ay Baye Mandione ñëpp dañuy dem. Eh, mais Baye Mandione mii Baye Mandione dafa loolu laa ñoom ñëpp ay ndawaat lañ. loolu nekkee ndawaat bàyyi bàyyi ñoon laa la waatal bàyyi ma ñun maa ko mën. foofu promoteur bu koy tëgg sax su ko neexee na téye sama avance ak sama reliquat ba pare su ma ko daanul bu ma ko jox. bàyyi ma ñoon. bàyyi ak ñi ma fi tudd ndawaar yooyu yëpp. yaa naar ca guuxum soow de. bàyyi ma ñoon du du guux soow du naar. dof la na ñëw ñu bëre. alam lébu. kooku si mu gaynde la na ñëw ñu bëre. nga gars yi ñëpp ñëw ñu bëre. jéen buntu këram laay wetu këram laay jaar di dem liggéey chaque jour. falaa am sànje loolu du état loolu récupéré la corona bi li mu récupéré si corona bi la. waaye yow loolu mooy entrement yor say lex ba mu toll noonu loolu entraînement la na ñëw ñu bëree. na ñëw ñu bëree sama traq la sama doom la na ñëw ma may ko chance. waaw Quench tamit na ñëw ma may ko chance nee na bari Bargny bi la bëgg a bëree na ñëw foofu ñu bëree ko foofu. mais yow yow booy saf yi rek nga tudd. déggoon ma wax man maa leen gën a saf loolu moo tax ma tudd leen instant bi damaa tàng jër na gaa yi ñëw ñu bëre. kon daal pare nga instant bi daal ñëwaat may booy seen sens mais ñi la daanoon ñëpp. loolu laa bëgg booy laa bëgg a may sens ñi ma daanoon tamit suñu bëggee ñu mayaat ma sens tonné pare na pour ñëpp. benn mbër rek laa fi bàyyi. ñu kii euh, euh, boobu dëkk kees Modou Anta kese laa fi bàyyi. Modou Anta loo seq ak moom non non no non sama fils la moom sama fils la sama gaañ la man moom hmm. bëggal boppam. waaw xam nga nit bëgg la nga bëgg nit a ko gën. Ah, waa xam nga tey jii daam lu ko waral loo xamante ni dafa rëy. da koo moom loolu da koo marqué. comprendre nga ba moom day toog sax di ko wax comprendre loolu rek moo tax. Mhm. mais tey jii ñu bëri dañoo wax sa combat ak booy bi ah combat jinne la mais tey jii dem na ba ñu ñaan ñu nekk ay gain ñu demalante di ñëwalante. Uh-huh. comprendre nga lu muy dugg dafa may woo téléphone xam tey kooku làmb booletu leen. Uh-huh. mais à part kooku moom kun ma jox damay bëre boo ma jiyee sama gain la suñu ma joxoon mu bëre. boo ma jiyee mi nga xamante ni mu ngi waaj a dem fin sax ku ma ko joxoon mu bëre. war a am ñoo xam te ne da leen war a jox revanche. Mhm. ku ci mel ni Balla Gaye Modou Lo seen Sène war koo jox revanche mu war a cinq ans incha allah déwén mais yow tey loolu lan ngay wax est-ce que euh, Bombardier tey fi mu toll nii euh, war naa mën a bàyyi nii. non Bombardier moom su bàyyee du neex tey jii moo fi nekk si luur si làmb ji comprendre nga tey dafa war a may boo yu bëri Bombardier combat yi fi dese dafa bëri Eumeu seen combat yi ko fi dese dafa bëri Tapha na gaa ji ban tafaatin di sama mbër de mais na ko gaa yi jël na gaa yi bëreeg moom mu neex la de guerre dafa war a bëreeg Gris Bordeaux Balla Gaye bëreeg Boy Niang comprendre nga Modou Lo bëreeg Ama Baldé. Mm, Baye Mandione mi ngay wax que ni yow bu muy bëri ay grand combat boobu yow mm-hmm. a dem te Baye Mandione barki dem Boy Ndiaye bi mu am buzz ba taxaw mu ñëw euh, mbër mi bañ a bëreeg moom. waaw Baye Mandione moom tey ku nekk da ñaan yàlla bëreeg moom man bëri naa euh, petit kii euh, petit combat moom mu bëri grand combat moom su lay doble woon sax suma ma comprend ga léegi moom léegi moom dafa war a ñëw ñu bëree xam nga suñu combat maak moom dafa dafa war a neex. parce que ñëpp ko waaye bàyyi ma ñoon du gaynde du dërëm fii la dem ba gàmm ñu naan ko da ngay dagg sa wee yi mu nekk foofu naan aw ma ay humilier waa Sénégal yëpp jour boobu Sénégal ñëpp rus jour boobu Gambie moo am suñu kaw kaw ndam de. bàyyi ma ñoon am suñu kaw ndam de. non même su amul weesaan nañ joxe gars yi dagg tuuti moo gën. te jour boobu loolu la fi indi loolu la fi indi. forme état bu normal. jigéenam boobu nga naan ma forme. ba muy sax su dee entraîné. moo ay entraîné fu muy entraîné xanaa ay ans lay entraîné. nan la ay na ñëw ñu bëre. baa ma ñoon mën na bëre mën na fecc am na xorom. waaw benn ñaar ñaar ñaar moo ci am. mën na fecc am na xorom. Hmm. mais bëre moom déggul. ñu bëre ñu leer ko maam ñu fi bëre. ñu fi bëre buux buuxante la fi def ba daan. Hmm. fii la yóbbu Brésilien Kaolack buuxanteeg moom ba daan Moussa Dioum moom ba daan na ñëw ñu bëre ma moom. mais kon réellement yow ñeme ma njool. ah baa ma njool déggoon la dama xam ni dama koy jàpp dama koy fooye dama koy fooye ba mu sonn ma doo ko daan. ak fuggam. ak fugg du fugg dara déggoo li ko bambara wax. arrivé gaynde la yor départ gaynde la yor mais arrivé muus la yor. allahu akbar bàyyi ma njoon ñu ko nuyu au passage mu suñu grand frère bu baax mu nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla xamee ko ku am fit ku am fit la bàyyi ma njoon tonnerre nag wax dëgg yàlla moom sa diggante ak bàyyi ma njoon comme que bëgg ngaa bëreeg moom. Hmm. tonnerre lébu la de. na ñëw ñu bëree lébu loolu du dara si làmb géew ba amul lébu amul géer amul lawbe. Hmm. na ñëw ñu bëree maa moom. ay double moteur ak yi fi nekk ndabar yooyu yëpp na ñëw ñu bëre. mais yow xamul lu ma jaaxal. Mhm. mais dafa te da ko doon wax man bañu ma benn. na ñëw ñu bëre. sa doomu ndey moom du dërëm gars yi lay jaaxal nii rek mais franc du dërëm. na ñëw ñu bëre. dama ko xam rek parce que moom bëre simple lay bëre ñemewul dóor du dóor du pousse du passe day nekk foofu rek di indi affaire de simple Franc tàngul gars yi tàng yi ñoo ngi si ruq yi waxuñu. nañ ñëw naanaa ni mooy loolu naanaa ni yaa ngi si ruq yi waxuñu. kon daal dafa mel ni yow daal pare. déggoon naa pour bépp benn mbër laa fi bàyyi muy Mour Anta à part loolu ku ma jox mu bëre. Hmm. waaw. pour yéen ñu suivi sur Wassare Lamb Wassare te ne moom mooy Tonnerre waxtaan nañu moom waxtaan xam te ne moom mooy ci carrière am tooñ ne yi ndax euh, Tonnerre mi kat parewaat na pour ñëw mais Tonnerre. Hmm. Euh, noonu gisee làmb instant bi fi mu toll. waa làmb moom instant bi moom fu mu toll xaw na doxul day soox day raam fu mu toll nii parce que ñi war a dundal làmb ñooy dundee làmb ñi ko war dundal dëgg dañ koy dundee parce que ñi ko war a dundal jàppale wuñ làmb làmb sponsor ñoom mooy dundal làmb te instant bi sponsor yu bëri dañoo daw comprendre nga da ngay gis ku dëgg làmb doo am benn sponsor loolu rafetul orange dafa war ñëw Tigo dafa war a ñëw comprendre nga bépp. af bépp usine wala société bu nekk si dëkk bi rek da ngaa war a ñëw loolu nag ñi ngànk làmb wala ñi jiite làmb wala ñi jiite sport ñoo si war a dox ay jéego mais waruñoo toog di seetaan noonu làmb ji di suux loolu du yoon. mais est-ce que mu euh, euh, euh, nekk. loolu loolu mën naa nekk loolu gars yi mën naa nekk parce que tey jii ah Alioune Alioune Sarr dafa war si def dox ay jéego mbër yëpp dem toog président comprendre nga da si war a def jéego kii Matar ba da si war a def jéego mais instant bi gars yi dañoo seetaan mbër rek loolu du yoon. loolu du yoon dañoo war a jàppale mbër yi instant bi làmb booy ñu si amul métier nii di ñëw nii su yeboon ñu wutaale métier di ko si boole de. Mhm. waaw kon gisoo ne làmb da gis ne làmb day gën a suux. ah su fekkee nii lay continuer moom day gën a suux. Mhm. na mbër yu mag yi wàññi seen kase yi promoteur yi tamit song mbër yu mag yi parce que mbër yu mag yi ay bala Gaye ay mutloo ay Ama Baldé yi su ñu amul combat làmb du neex waaw il ñu ñu am combat ñooñu tamit dañu war a wàññi seen kase yi mais ay cent nangam rek la ñuy wax aju fa sonal promoteur te ko si joxoon billet njëgu cent million du la ko jaayal loolu tamit dafa métti. kon yow d'accord nga ñu naan mbër yu mag yi nekk ci kaw ñoom ñoo commencé yàq làmb ji parce que cachet yi ñuy demand cachet yi ñuy en plus gaañoo bi ñuy gaañoo si kaw dafa bëri ay kii sama gaañ la kii sama gaañ la mbër yi mag yëpp di métti loolu du yoon. comprendre mun nga am benn gaañ kenn terewu la ko mais nga am fii gaañ bu subaa nga am fële gaañ loolu doxul loolu doxul na yi bëri seen biir main de sens comprendre nga waaye ay kii mooy bi kële laay xaar kii laay xaar kii laay togg mu ñor kee toggaguma ko yooyu amul si làmb. na gaa yi bëree. dañuy moytonte bu baax. soo gisee nangu ñu jël tafaatin métonte bi moo tax. tafaatin du sa du sama mbër mais dafa bokk si làmb day neexal làmb. comprendre te làmb da koo yaakaar waa écurie Bawol dañ ko yaakaar dafa war a bëre. mais kañ tafaatin na ko gars yi may chance na ko na ko Gris Bordeaux jël Gris Bordeaux lu tax jëlul tafaatin waaw loolu dafa neex. comprendre nga Gris Bordeaux euh, kii la de guerre mosu ñoo bëri loolu dafa neex. mais gars yi dañuy méttoonte rek loolu du yoon. kon Balla Gaye Boy Niang mën nañu bëre. ku ñoom ñaar ku ci ëpp avantage moom jarul ma koy wax. non ku ci ëpp avantage moom mooy loolu xam nga rek tey jii làmb mun nga waxee fii Kébémer la wala nga mun nga waxee fii mais yow mi may laaj sax xam nga ñoom ñaari ku mën suñu taxawaloon combat bi. Mhm. xam nga ki mën xam nga kii daan. am am na ki si mën moom. am na ku si mën yow mii yaa ko gën a xam. Ah, Ama Baldé am na ko si mën. Ah, ah. comprendre nga moom xam naa ne mu Ama Sara. Mm-hmm. xam nga ne am na ko si mën. non si am ñoo xamante ne tey jii. Mm-hmm. xam nga soo xoolee di nga xam ne kii moo mën mais pensa il faut nga boole leen pour neexal làmb. mais na meilleur. non di si naa may meilleur naa may meilleur di nga xam ne kii moo mën kii. waa kalaan yooyu moom su reyu làmb it aussi baaxul si làmb. na gaa yi na gaa yi nekk benn nekk xam nga nekk seen liggéey quoi mais chaque jour ay clan promoteur ngay dégg loolu loolu doxul daal duna lu làmb daal day yàqa làmb. Mhm. noonu euh, xam nga nguur moom bu dul jeex amul nguuru yàlla rek moo dul jeex comprendre nga Alioune Sarr su fekkee dem moo gën ci moom na dem su fekkee tamit toog moo gën gaa yi bàyyi mu toog comprendre nga. mais man moom wax dëgg moom mu dem ak mu toog moom comprendre nga amul lu ma benn kii mais moom franchement defar na làmb quoi su dëgg rek neex yàlla defar na làmb bis bu ko fi nit ñi waxee waxee ba jëlee ko fi nañ ko indi nañ fi indi koo xamante ni tane na ko wala ko gën waaw. est seen ndënd ah, caaxaan yor ko de. man dem naa CNG gis naa ni ñuy organiser woo mais caaxaan yor ko xam nga su ko mbër yoree tey jii imaginer li tey jii mbër yor ko ñu aj benn mbër mbër boobu day dem da dem si mbër ba ñaan ko mu baal ko affaire yooyu parce que mbër morom ba xam nga duñ soxlante su ko ay nante yoree comme ay Keeba Kanté yi nii affaire yooyu duñu aj benn mbër affaire yooyu noonu CNG caaxaan moo ko yorul su fekkee daal mënuñu am ku gën Alioune Sarr nañ bàyyi nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi mu ne fi man moom mu ne feek mu ñàkk fee ne moom amul lu ban njëriñ parce que ñoom mos nañ maa dagg comprendre nga xaalis ak karaw ba xene yam dafa sax si xol loolu ba léegi duma ko fàtte samay doom sax suñ màggee naa leen ko wax. Mhm. naa leen seen bàyyi seen bàyyi mos nañ ko dagg un million trois cent comprendre nga Alioune Sarr moo ko daggoon. mais Alioune Sarr tamit baax na si làmb dafa organiser làmb dafa defar làmb xoolal bu njëkk ba mbëri fukk bu naan ñëwee si làmb mais tey jii mbër bu siy dugg si làmb soo bëggee def affaire connerie yaa ngi xalaat di mën nañ dagg sa xaalis te mbër fi gën a bëgg xaalis fii comprendre nga gars lu ñuy wax wala lu ñuy def daal nañ ko seetaat bu baax rek doo ko def wala doo ko wax balaa ñu si am mbetteel. yow ci kan ngay gis sa bopp koo xam te ne bu bëree di xam ne man mii kii li nekk ci moom moo nekk ci man am na. waaw si mbër yi de franchement léeg-léeg ma gis bëre Balla kontaan léeg-léeg ma gis bëre Ndaamali ma seen kontaan léeg ma gis bëre kii euh, nu ko si waxatee sax ay booy non non mag ñi mag ñi moom ñoom ñaar moom franchement suñu bëree rek damay kontaan Balla Gaye su bëree damay kontaan su euh, ma seen bëree moom damay kontaan léeg-léeg ma gis. waaw parce que ndeysaan léeg ñu egg leen fu sori ñu def ay rotation wala làmb dem ba métti ñu wane jom tey jii xoolal Balla euh, kii euh, euh, Gris Bordeaux ba muy bëri Eumeu seen Eumeu seen demoon na ba jeexal mais jom ak fugguma rek moo ko fa yóbbu xam nga lu may wax si mbër sax bëriwul parce que benn mbër du toog di wax si man. comprendre nga mais waxtaan wax dëgg da caa gën léeg ma gis ñoom ñu bëree ma xam lii li ñuy bëree bërikat dong nga koy def wala ko xam bëri léeg ma gis Balla Gaye def ay rotation jàpp nit gisoo boobu muy bëreeg Modou Lo Modou ba mu bëggee jaar si poxataan bi xam na benn pièce bu mu ko tegaloon buggoon na jàpp zone bi fàq ko samp bopp bi Modou Lo xam dafa daanoo ni ñu jàpp tànk yi mu daanu noonu mais su ko su bëtoon Modou euh, Balla Gaye Balla beneen daan moom koy daan moo gën a garaaw sax moom it champion la Modou Lo ku mun bëre la champion naanaanu bërekat la moom it léeg mu bëree moo kontaan. waaw léeg ñoom ñett daal léeg-léeg ñu bëree bëree bu rëy ma kontaan ñoom la de guerre sax léeg mu def ay défendre yoo xamante ni da xam ne kii sa defu armation parce que léeg-léeg mu moom dalay freiner sa yaram xam ne doo ñëw. Mhm. kon daal ay naanaan lañ léeg mu ñu bëree ma kontaan man damay toog di seetaan ma kontaan ma ne cum dëgg xoolal kii la mu bëgg a def wala xoolal kii la may waaj a def loolu la may neex si làmb. lu ñu dese ci waxtu presque jeex na parce que tamit gis nañu wax dëgg yàlla. comme fu nekk euh, laal nga fa. Mhm. instant bi comme que ci coronavirus la nekk dafa mën nañu wax ni làmb amul mais tey euh, ban conseil ngay joxe ndax gis nañu instant bi société bi xaw naa yëngu tuuti. Mhm. affaire mixage yi fi amoon affaire tarixa yi tey porteur de voix nga ndax soo waxee gars yi dañ lay dégg mais nan nga gisee instant bi jamono fu mu toll. waaw jamono fu mu toll moom na gars yi sant yàlla rek te dellu tuub dellu suñu borom si yàlla rek parce que dara amul loolu yàlla comprendre képp koo yaakaar rek yàlla yaakaar kon na nit ñi di tuub di jéggalu di jaamu yàlla bu baax a baax a baax di wax ay safurlaa bu baax a baax a baax comprendre nga parce que jamono bi toll na foo xamante ni dafa xaw a doy waar tuuti di ñaan aussi tamit feebar bi ñuy wax mbas bi. ñaan mu jugee fii si jàmm nit ñu nekkaat seen jàmm parce que instant feebar bi moom gaañ li mu téye dafa bëri wala saison bi amul football yi amatul benn sport amatul te ñu am ñoo xamante ni si sport la ñuy dundoo moo xam mbër bi la moo xam jaaykatu ndox bi la moo xam jaaykatu yére bi la moo xam defarkatu moyen bi la comprendre ga te jii daal mbas bi lu mu téye dafa bëri ñuy ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi rek si barki Seydina Mohamed waaw. Ah, am na looy waaw li ngay regretté si làmb lenn la rek mooy comme affaire trahison yi xam nga léeg ñu ne mbër day war mais am na ñoo xamante ni ñooy ànd ak mbër ñoom ñoo ñëkk war mbër yi comprendre ga léeg-léeg nga doon gis koo xam ne chaque jour da gis image sa kanam muy wax naan su baxen ñëwoon sax man maay dem nii naa nga jékki-jékki nekk si ay difficulté moom la ginnaaw loolu da lay métti. loolu rek moo lay métti si làmb loolu rek moo lay métti si làmb de ñu lay wan ginnaaw rek mais à loolu moom làmb daanook daan ñu ànd te tey daan bu ñu daan la lii Youssou Ndour di wax jongante la rek foo ak la soo gañee foo ak la su la gañee foo ak réer la foo ak la rek mënul dépasser loolu mais loolu rek moo lay métti su dul loolu du leneen. sama combat moo la gën a neex sama combat bi ma gën a yi combat yi Yékini bokk na ci sama combat Makati 2 bokk na ci mhm. waaw. parce que yooyu dama daan jël yoo xamante ni euh, daanaka jël jël yu rëy la jël judoka dëgg la. Mhm. lamb lu mu apporté. lamb apporté la mu lu bëree bari bari bëri bëri. ah may na ma succès may na ma loo xamante ni lu ma bëgg lijjanti rek amaana day yomb comprendre nga may na ma lu bari daal lamb li ma apporté bari na. Mhm. ñu bari dañ lay jëwee benn jëw ko ni bi comme que dafa nekk ci saako yi est-ce que jarul def comme yeneen bëri def immigré yi dañ toog. yaa ngi parce que tey jii man maa ngi am loo xamante ni si samay samay bâtiment samay taqale su dul woon euh, làmb duma ko ci am te su demoon tukki ji tamit aussi mun naa dem ba soxla loolu kon instant bii nii daal franchement immigré ji santé gu ko daal. <laughs> waaw boo yooyu xamul lu tax ñuy def loolu fi làmb tool la rek te tamit dañuy manqué jàppale su ñu amee bunt rek dootu suñu demee dootu ñëwaat kaaw bu dafa neex de ku la neexul waxul dëgg gars yi pensa dañuy filmer yoo xam xamante ay filmer yu yàgg la di la ko wan di la tiital mais kaaw ba dafa neex ba dee. rëg rëg. rëg nu ma gisee mbër la rek comme yeneen mbër yi mu ngi si dynamique bu baax. Hmm. waaw mu ngi si dynamique bu baax. déggoo ma la wax instant bi soo ko laajee ñu bëri dañuy taf seen gémmiñ wala ñuy wax naan rek rek mais naa am benn combat ma ñaari combat nga xool li si kanam raw li bët man amul benn mbër bu ma fi bàyyi. loolu du dara élément yooyu noonu billaahi làmb moo gën a métti élément yooyu tàngul. barki salaatil fatiha tàngul. déggoo ma la sama ñaari booy ñoo ngi si koñ bi loolu la ñuy def tàngul méttiwul tàngul. Hmm, non waxuma Reug Reug tàngul de dama ne eh, combat yooyu muy def méttiwul. mais xam nga Reug Reug dafa tàng. <coughs> non Reug Reug moom naanaan la naanaan la naanaanu bërikat la. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Serigne Ndiaye 2. ñoom ñëpp ay champion lañ. ñu góorgóorlu rek. ñaan yàlla ñu comme ñoo ngi ci kaw ñu fexe ñu ñu bëree ñoom rek. nañ ñëw rek. ku ñëw baax na. Eh, waaw instant bi baax mu ñor na ñëw ñu bëre moom laa gën a soxla pour ñu bëre moom moom. te mu ko xiif instant bii. billaay moom laa gën a xiif ko añ bi sax. Eh. waaw. l'émission sant yàlla rek sant yàlla bu baax julli si bi sant sama ñaari waajur bu baax. di nuyu sama doomu ndey yi nga xamante ni boobu ba dara xewee ba léegi ñoo ngi fi xadewuñ mu benn yoon ku su mel ne le grand champion Ibou Diagne sant naa ko gërëm naa ko comprendre nga Mbaye Seck moom sama papa moom mooy jàppale bu baax comprendre nga. ak Modou Dame maa ngi koy sand bu baax Modou Dame moom la grand commerçant te kii croisement Teddy Diallo maa ngi koy sant bu baax. nam ma dara daal lu ma bëgg rek su ma leen woowee téléphone dañuy ñëw dox ko ñi nga xamante ni jour ñoo ngi ñëw si kër gi di ma di xam ni seen papalaa ñu def ma ma def leen doom ay ku mel ni góor ay ñoom gaa yëpp daal ñu xam ne ñoo ngi fi ay Idi Faye ay xama seexe Isonoog Assane gaa yëpp ñoo ngi fi daal ñu ngi may jàppale bu baax su ma xëy su ma xëyul yëpp ñu ngi si kër gi di ma xool lu ma manqué lu ma manqué wul. Mhm. di ko bëggee waat bu baax a baax moom Tonnerre mu nekk koo xam ni suñu frère la ndax lépp ñu bëgg ci moom day yomb. dafa mhm. ne nag ñoo dëkk. mais ne mm. ku ñu ku ñu mm. ñaanal nag tolof tolof yi mu génn si jàmm ak salaam que li ma waxee yëmbal yaakaar mm, dëgg yàlla fu ne yóbbu ngañ fa di la ñaanal yaa xam ne bëgg yàlla na la ko yàlla defal yàlla sàmm la aar amin amin amin gën a kontaan ah, di ko bëggee lay l'infatigable Basirou Diouf yal na yàlla na sa jàmm yàgg ndax nee naa la koo xamul noo koy def noonu la def te yow rek maa bëgg safoo ma lool sama xarit suma complice sama lépp bu ma yàlla bëggee dama bàyyi ak yow di ko bëggee bu baax a baax mu Kara Fashion la moom moo jaar fii nii na ko yàlla na sa jaamu yàgg borom rob yi naay si borom ensemble yi naay si nan la daal kontaan naa ci yow bu baax a baax mais Bassirou Diouf damay bëggee nag kullukum koo xam te ni yow yaa ngi ñuy bëggee wasaare lamb di koy waxee rek da ngeen ñoo jàppale yéen ñëpp gis nañ nag ah commentaire yi gis nañ encouragement yi naan leen seen yëf la ay xale lañ ay ndaw lañ dañuy jàng rek naan leen daal gis nañ conseil yi te incha allah lépp leen bëgg dañ koy def képp ko leen bëgg rek xam naa cliqué leen boo leen cliqué rek bindu ko dinañ def le tout pour jëli leen ko parce que seen mbégte ñun mooy suñu mbégte te am ñu dul yéen wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen bu baax a baax nan leen nag affaire yi na gën a yokk parce que ñun ak yéen ñoo a dem fu sori te am na lu bees tàkk leen di indil xaar leen quoi muy jiil yi di Ousin di Fatima di ñëpp daal béggewaat ñëpp yal na jàmm yàgg te lu jàmm jàmm ko gën na xool yi féex rek di jaajëfal ñëpp di remercier jàpp euh, fosaare kese Fatima kese jëf Basiru